balaa président Macky Sall doon wax lii. ma décision est de ne pas être candidat. Ousmane Sonko lii la waxoon. bis bu ñu nee jàpp nañu Ousmane Sonko te bàyyiwuñu ko ca saasa maa ngi woo askan bi ñu jóg nañ ko defee mars 2021. Khalifa bañ ko tudd. un tel ou un autre ne présente pas d'intérêt pour nous. kii di meeru Ndakaaru di Barthélémy Dias ñëw taxaw wax vidéo bu fukki simili ak ñaar may sàkkuwaat ci président Macky Sall euh, na may ñëpp aafiya ñëpp mën a bokk ci élection yi di ci wax ni amul benn parti politique bu nekk Sénégal bu mën a demal ma ngir gagné ay élection njabootu Khalifa Sall am seen candidat ñeneen am seen candidat ñit fëgg dënam ne tey day gagné premier tour nag moom mii di Barthélémy di wax ni Sénégal démocratie la ñu xam te ndaw ñi dañ ci war a tënku. képp kuy wut nguur Sénégal benn yoon kese la la yoon may nga am sañ-sañ di ko wuti ci yoon boobu mooy yoonu élection. bu kenn yàq seen xel pour ngeen dem def defi leneen ba may président Macky Sall prétexte mun moom tamit bu leen defi leneen. di wax ak Yewwi Askan Wi boole waale ci sax ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko. bëgg dugal Sénégal ci guuta ndax sa bëgg-bëgg kooku wax dëgg yàlla duñ ci mën a ànd ak ñooñu. à la coalition ñu jàppee seen bopp ñoom ñooy représenter opposition nañu xoolaat seen taxawaay. mu jeexal digoo ñëpp ngir ñu booloo. socialiste yi ñu ngi di tàllal suñu loxo yi. bu ko defee ci lu mu wax ñoom ñu mën a gagné élection yi. yu ñu jëm ci atum 2024.